teg ma wax leen kan mooy Ibrahima la pour wan ne kuy samp sa ndënd fii si Daaru Salaam Mbàkke waxuma la Daaru Salaam Mbàkke rek am moom bu sampee ndëndam ñëpp dinañ xamante ni Ibrahima mii doomu dëkk bi la képp ku xam ñaari figure nga fi xamoon muy ñaari ñaari góor yoo xamante ni ñoom rek nga doon dégg si Daaru Salaam muy góor gu ñuy wax Mama Dior Ba ak Baba Aydara Ibrahima mii nag Mama Dior mooy maamam Ami Baabu di yaayam Youssou Ba mooy nijaayam képp ku wax politique fii ci Mbacké wax politique si Daaru tudd Youssou Babou ak parcours bu am solo bi nga xamante ni mëne na ko fii ak lutte yi mu daan lutter pour pour libérer Mbacké kon nag Ibrahima bu sampee ndëndam wàcc na bi ñu wax Ibrahima parcours muy pire produit école sénégalaise bi mu jàngee génn dem Algérie ñibbisiwaat demaat université Cheikh Anta Diop jóge fa pare nekk expert financier kon ñun amuñu lenn lu ñuy envier benn leader. leader jaar ba jàng rek Ibrahima jaar na fa doog a egsi fii mu egsi tey nag mu ànd ak ñoo xamante ni ñu topp si ginnaawam fu ñu war a taxaw taxaw nañ fa muy xalifa Seck mi jóge ba Russie ñëw ak ku ñuy wax Pape Amar nekk ba Canada. mu ànd ak ñëpp di lutter di mëne pour pour libérer Mbacké pour delloo Mbacké li mu li cëram ci Sénégal kon teg na ko fu leer. jàppale kenn fii si Daaru Salaam war nañoo jàppale doomi Daaru Salaam ji war a mën a jàppale sëtu Mama Dior bii di doona Youssou Babou te xam na ni Ibrahima Goumba nag coalition moo ñu boole di nga Daaru war nañ laa mën a dimbale jàpp la ñu dugal Daaru fii ñun Daaru Salaam ñun dañoo war a comme ñëpp lañ war a mel lépp luy génn rek Daaru war na cee am leen élection présidentielle yaa ngi ñëw na gën a saf saf. ma ngi nii Mbàkke ngi nii ñun daal ñu ngi lay ñaanal ci barke Cheikh Amadou Bamba mo Rasuul fi ngeen bëgg a yegg ak ñi nga muy de Fall ak ñu mel ni moom. kon nag Ibrahima boo ma gisee muy guddi muy bëcëg lu may dox rek xamal ni lu la jëme kanam rek ci lay dox kon nag dama bëgg jeunesse bii nekk fii ñun ñëpp ñu ànd jàppale Ibrahima mii gunge ko. ba mu fi mu bëgg a egg fépp mu àgg fi ñun waa Daaru Salaam ak gaawaan waruñoo taxaw di toppee parce que ñun électorat Mbàkke bépp si ñun la nekk kon jot na ñu am fi leader boo xamante ni dañ koy may doole ëllëg mu yor ay direction yoo xamante ni bu suñ bët xonkee mu mun ñu koo fajal salaam jot na ñu xam fi ñu jëm ndaxte ñun vraiment mënuñu am Daaru Salaam et gaawaan je veux dire ndax mënuñoo am les deux plus grands centres de vote yu nekk Mbàkke muy am Cheikh Anta ak soxna Khady Penda li ñu am dafa am solo foog ñu wax ko ñun ñi xam ko donc kufi fal ñun ñoo la fal parce que kii di maam Cheikh Anta di soxna Khady Penda xam ne électorat boobu gaawaan ak Daaru ak Santhié ñoo ko fi te ku fi falu maire fa ngay baatre waa léegi te kuñ falu maire dootu la gis dégg na au passage monsieur le maire nee na mairie bi il a le prix bu ko kenn fonto il a mis le prix pour avoir la mairie ñu koy wax ne na ko tontu ne ko su contrat bi jeexee nañu delloo suñu mairie parce que kenn du ko renouvelé ndax ñun fi ñuy jëm ñeme nañ fa te xam nañ ko te li ma gën a neex mooy dañ maa sas ndax jeunesse su Daaru Salaam sama tonton yi dañoo ñëw gis ma wax man na ma ñëw bëgg nga engagé wu ci politique parce que gaa ñi sutul leen gaa sax yàlla na ëpp diplôme xam nga dañaan saabu di fóot boppam yaakaar naa Fatou Babou Khalifa wax nañ donc loolu doy na donc li am solo daal mooy damay woo tout le monde j'appelle à tous les fils de Gawane tous les fils de Darou Salam et tous les fils de Mbacké en général ñu àndandoo jàppandoo dem jëli suñu mairie je lance ici ma ma candidature dès à présent te dinaa ci liggéey dinaa ci béy sama tànk ndax xam naa ne am naa jeunesse ak ay femmes yoo xam ne déterminé nañu engagé woon te ñu ngi suñu ginnaaw